alhamdulillah المسجد الأواخر من رمضان mooy na ngeen nattale ci fukki fan ci weeru koor borom xam-xam yi di ko natt ci ñaar fukki guddi yi ak juróom-ñaar muy tey ñu teg ko ci ne boo wàññee saar wi tàmbalee si inna anzalna fii lay la ci xadri bu xooñee ba mu àgg xadri sunu borom tudd na yoon ci saam eh, booy wàññi nag laylatul xadr yaakaar naa ne moom itam ba jëmmi araf yi ci bopp nag mooy tolloo ñaar fukk ak juróom-ñaar am na nu ñu ko natt dal ba tax ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu ci natt soxna Aïcha radiyallahu anha masa laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su ma demoon ba xam ne tey jii la lay latul xat loo may digal ma ñaan mu ne ko neel allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni da nga wax ne yàlla yow de ak jéggalekat nga te ku bëgg ak jégal maa ngi lay ñaan nga jégal kon ñaan ko bi moom la yonante bi waxoon ci waxaan yi si nekk ba dem ba jàpp ne tey la leen ko xatal ko ñaan lii ngeen nekkee muy di góorgóorlu ci seen diggante ak seen bopp moo tax yàpp bi ñu yonante yi te leen yónni ngir ñu xam ne benn bool lañ am moom lañu war a yonent yëpp lañ daan woote yonent bi ñu ñëw sallallahu ci baat bii jógul woon ngir daa jóg di bi la ko andi mooy ñi jubloo gàllankoor woote woote jubloo gàllankoor ngeen jóg ngir jubloo gàllankoor woote ñooñu ñee dañ doon xeex waaye saa bu ñu nu mën a wéeteeg suñu borom jaamu ànd ak xel mu dal mën nañ leen a bàyyi ñoom itam tranquille loolu la alxuraan wax ni laa yanhaakum Allaahu ani lladiina lam yuqaatilukum fi ddiin wa lam yuxrijukum min diyaarikum wa daaharu alaa ixraajikum an tawallawhum an tabarruhum wa tuqsituu ilayhim inna Allaaha yuhibbul muqsitiin suñu borom dafa wax ne yàlla terewuleen ngeen jëflante ñi nga xam ne terewuñu leen seen diine ngeen jëflante ñoom njëkk daan ñam leen tere a dox seen diggante ak ngeen dund seen diine te nii la Sëriñ Tuuba woote dafa mel ne jógutoon moom ngir ne nit ñi force ñu jàmm waaye dafa jóg xool lay yor mu di ci dund ñi ko doy looy dañoo xool yoon bi mu nekk doy ñu ñëw fas ko yéene topp te kii ñëw fas ko yéene topp da woon yoon bi yoon bii ci la nekk muy jaamu yàlla dama ko def dara di ko dimbali ko jaamu yàlla la ci ëpp solo ñu xam ñu war koo xam ne nit dafa lott dafa lott lu am rek suñu borom ko doon moo tax yonente bi defutoon rek julli ak woor ak sikar muy métier déedéet waaye mboolem bu ñu war a yëngatu ci àdduna lu ñu war a taxawal war koo lijjanti ci saa yi daf koy lijjanti tëral plan yu leer ba mu leer mu doog a sukkandiku ci yàlla di ñaan yàlla mu jàllale leen loolu muy doon waaye waxuñ sax nit ku dikk rek ñu ne jaamu yàlla mu daal di fan bisimilah daal dem dëkk ci jàkk yi di def saa bu sallee kamara saa bu sallee kamara waaw muy jàng alxuraan kese dañuy bëgg nit ki mbiru àddunaam mu lal ko ba mu leer yëngutu yañ ca war a yëngutu yëpp ku yëngutu ko ci ba noppi nag di ñaan yàlla mu sottal ko la moo tax ñi ngeen dajal di jàng alxuraan di jàng xasida bépp jafe-jafe ñu koy am lépp lu ngeen di yootu mu tële bépp jafe-jafe bu mbokkum jullit am buñ dajaloo ci jataay yu mel nii nañ ko ci fasal nañ ciy fasal suñu borom dimbali ko ndax nit dafa lott li mu lottee nag dimbali ko yàlla képp moo tax a moo tax am na benn xadiisu yonente bi rasul bi wax ni wax jaam bi buy julli bu ne alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom daan sama jaam bu sant na ma boo nee arrahmaani rahim mu ne sama jaam bi di na ma boo nee maliki sama jaam bi di na ma bu nee iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin mu ne yonent yàlla day wax ne haada bayni wa bayna abdi nisfayn lii nag maag sama jaam bi ñoo koy seddoo dañ koy xaaj ci digg bi ñu jël genn wàll ma jël genn wàll daal ne wali an fi maasaan léegi nis fay nii mooy boo ne iyaaka naa lépp yàlla ko boo iyaaka nastain yow yaa ko jàmbee ko sunu borom teg ci nag ñoo ko xaaju lu mu ma ñaan may waaye mu mel ni yàlla moo moo nu sax ñu ñaan ko ànd jub tegal ñu teg ca ihdina siraatal mustaqim yàlla na nga nu teg ca yoon wu jub siraatal lazina an'amta alayhim mooy yoon ñi nga defal xéewal muy yonente yi nit ñu baax ñeneen topp min annabiyyiina wa siddiqiina wa shuhadaa wa saalihiin daa cee teg gayril maxduubi alayhim wala daalliin bu mu doon yoonu ña nga xam ne dañ leen mere bu mu doon yoonu ña réer loolu it ñu koy firi yoon yonente bi daan yahood yi ñu mere lañ ngir dañoo xam te nanguwuñ ko jafe daal ne an nasaara daalloon nasaraan yi ñoom dañoo réer dañoo sànq ñee dañoo xam a def lañ xam ñii dañoo réer léegi nag bu muy ñaan suñu borom mu tegu ci yoon bi nga xam ne du wenn yoon ci ñaari yoon yoonu ki xam jafewul ak ki xamul lu ci ne dali xasan al xasanul basri daan wax ne yàlla wàccee na téeméeri téere ak ñeent mboolem xam-xam bi nekkoon ci téeméeri téere yooyu ak téeméeri téere def na ko ci ñeent yu mujj yi muy tawreet ak injil ak saboor ak furxaan daal di wax ni mboolem xam-xam ñeenti téere yooyu yëpp it dajale na ko ci alxuraan daal ni xam-xam alxuraan yëpp it dajale na ko ci saar yi ñu tuddee al mufassal saar yi ñu càkkantale ak bismillah daal ne xam-xam bu bépp yéen dajal na ko ci Fatiha daal ne xam-xam bu dajal na ko ñaari baat ñaari baat yi mooy iyyaka na'budu wa iyyaka wax ni ñaari dajale na xam-xam yi ña jëkkoon ak ñi mujj xam-xam yi mboolem yonent yi ci ñaari baat mooy yàlla képp booy dimbali ko it moom képp ngay dimbali ñuy wax na ni boo ne yaakaar naa bu ko yem ci jaamu yàlla kese kese kese te sukkandiku woo ci yàlla sab noonu dana la noppi benn muy noonu zahir mbaa noonu baatin fokk nga boole ci iyaaka nasta'iin mooy dimbali ko yàlla iyaaka nasta'iin mooy dimbali ko yàlla kese kese boo jëlul iyaaka naa ji ni nga koo jaam di ko dimbali ko ndax ñëppay dimbali ko yàlla ba ci yëf dañuy dimbali ko yàlla dana leen dimbali waaye nag ku nekkuñu ci aw yoon ndax jaamu yàlla gën a soxla ñoom ñu dem bët moo tax nit ki mën naa bay bàyyi julli bàyyi woor bàyyi asak ba noppi nag di fanaanee xoole di ñaan yàlla yàlla di ne may ma nanga may ma nanga yàlla dana ko ko may waaye loolu may gam ko may nag tekkiwut ni moom mi tegoogul na ci aw yoon ngir dafa bàyyi point am solo boobu yàgg na moo tax ñaari jéego yooyu dañu doxe pour yor ñaari tànk waaye bu dul loolu rek benn tànk ngay doon te loolu soxlay teg kon yoon waa ngi muy jàng alxuraan ndax Sëriñ dafa wax ne kullu muridin bi yaloosu fan yu dem tilaawatan li xayri zikrin xadru si bépp mu lu aj ci na nga saxal nga jàng alxuraan am na fa xam ne dafa digle ni adim salaasata adim tilaawata li zal kitaab walaw salaasata min al ahsaan na nga saxal a jàng téere yi donte ñetti si képp la sax loolu moo ko digle woon te it fa am solo ndax yaa man afa an waalidi wa ummi wa man yoxe yow yàlla bi nga xam ne jéggal nga sama wayjur bu góor jéggal sama wayjur bu jigéen jéggal képp ku ko kon ka ko sopp fa dugal sës mi rek moo tax loolu ab cër la ba muy ñaani ba mu ne warda ani sahbil kiraami summa an naadimi haza nasr yàlla yàlla na nga gërëm saxaaba yi yàlla na nga way bay di waaye ba muy ñaan dañu wax fi ne kulli man taalax bi na nga jéggal képp koo xamante ne aju na ci man doo ko doo ko wax nag di wax li kulli mu'minin wa mu'minat waaw kon kii aju ci moom am na cër bu ko jox am na foo xam ne dafa wax ne yaa rabbi ij'al muriidin maa fi hisnika al-hasini wa shamil ma yal na nga def ñun ñëpp ñu nekk ci sangee suuf sangee doom si nga xam ni ku ca dugg dina aar te dajaleel ba mbooloo daa cay ñaan di malik jami'ahum nufuusahum ila shay'in yadurru wal masaaj yaqbala ñoom ñëpp yal na nga leen moom loo seen i seen seen i bakkan te nangul leen seen i jëf daa cee teg li kulli man ilayhi maada wa an yadayhi laa tusansi maada yal na nga jégal ku jàng ci man te ñaari loxo mi bul ca sori alal kon ñaan yooyu nga xam ne Sëriñ Tuubaa ñaanal na ko ab murid rek jar na murid bi jamono bu ne muy góor moo di ndigal Sëriñ Tuubaa di ci jëm góorgóorlu di jàng xasida di jëm góorgóorlu di lu baax kem kàttan ndax lu baax it tekkiwut rek di jàng kese waaye li muy tekki mooy jikko yu di am yëg kenn ku ne lu mu yëg fexe ba morom yi yëgal yëgandoo ko ak ni ko yant bi wax ni masalul mu'minina fii tawaa di diim fii tawaa di eh, misaal ci ni ñuy bëggante ak ni ñuy yërëmante ak ni ñuy ñeewantante dañuy mel ni benn yaram benn si yëpp cër yëpp koy dem ka masalin jasadil waahid idaa shtakaa minhu udwun tadaa'a bi ni war a bëggante ñu war a yërëmante ak ni dañoo war wenn yaram wenn yaram lu ca laal lépp yëgandoo daal di jullit ci noonu yor mel loolu ba ma tey mooy takkatoo bi may wax nii di takkatoo di góorgóorlu tey ñi takkatoo ci lu baax ña ngay takkatoo ci dara ña ña nekk ci football ba ña nga ci ña nekk ci bëre ba ña nga ña nekk ci leneen ña nga ci ñenn ñooñu daal dafa am luñ takkatoo kul xees bi maal dañ fare te kuréel bu ne lañ nekk mooy seen bët léegi nag kuréel bi nga xam ne suñu borom dina boole ci yàlla. boole leen ci Sëriñ Tuubaa ñu jéem a góorgóorlu loolu tawfeex la la dañ ci war di góorgóorlu suñu kéem kàttan la ci des mooy àdduna ni muy doxe àdduna àdduna dafa joxul kenn li bëgg baax na àdduna joxul li bëgg waaye li am solo mooy li ngay wut boo koy am ak boo koy ñàkk lépp nga sukkandiku ci yàlla fa am benn nit yàlla boo xam ne dañ tuumaal jàpp dañ ak benn taalibe taalibe bi ne ko dëgg dëgg maati dëgg dëgg ak xam yàlla lu muy tekki mu ne ko bu subaa bañ jàpp si sëriñ bii ba daaj ba dagg ay cëram na ko laaj na nga ma laaj na nga ko laaj lii nga laaj teel bi daal di xam te saa dagg tànk dagg loxo bañ koy dagg toq deret gu toq day bind allah allah foofu sëriñ bi daal di laaj teel laaj bi nga laaj dem laaj ginnaaw bu ñu daggee téere ba noppi mu ne ko laaj bi ko laaj bu mu doon mu ne ko dëgg-dëgg maarifa ak xam yàlla mu ne ko dëgg-dëgg ak xam yàlla mooy ngay sant yàlla ci boo ak boo nekkee ci xewal nekk ci xewal ak nekk ci lu mel loolu mooy ak danañ ko jàng ci mbirum sëriñ bi nekk ci géej gi ci ni ko sëriñ Abdul Ahad nett li am na ay jamono bu woote màggal gi moom seen laat daal di wax ne sëriñ bi ci jàkk ji sëriñ Mbàkke Madina defar fii la sëriñ bi nekkoon def li i'tikaaf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom feeñu lu mu bëgg a la ci daan boole ngir tuur deret moo ci daan politique te tuur deret bu ci daan weesu lan ci mën a ko ab nattu bu tar lay doon boo xam bari na nit ku dem ba àgg fii nga àgg ma feeñoo ko nii ma la feeñ laaj ko lu mu du bëgg lu li nga bëgg te bu ñu ko ko yaree bu demee ba ci biir du du ko attan te te dana fa dox yàqule ba faaw te yow da ngay sama waay ko yoo xam ne bëgg na ma la lool daal di ne ko ñetti weer moo la tee doon xubbu sama bés ni ngi tey mu ne daal tamit ñetti weer yooyu nga doon loolu de baax na lool waaye nag sama gis jëlli na mu ne ko li ci am de mooy nattu nattu bii ciy tege ngir nga jot ci li ngeen mën dee lii ma la jox wute ne sëriñ bi ne ko sama ruubu laa xam lu waaye ruubu lu mu attanul na rek jom jaat na mun ko ci bisimilah loolu moo sabab nee na ñu ne ko kon nag dëkk bii da koy jël ndax aar nga ko kaaraange joo xam ni dara lu la naqari mënu la fi fekk euh, te lii nga bëgg ci ay métit ak i tiskap ci la mën a jaar loolu moo sabab ak génnam Tuuba dem ñu jaxase ko ak jël ko àtte ko yóbbu ko gëm mu wax ni bi mu jógee ci këram dem dem ci yoonu géej boobu am fa juróom-ñaari at yu tegal ba ni mu dellusee bés bu set teg nañu ko ci ab nattu loo xam dana ko fàttali nattu dem juróomiti sëriñ bi àgg nañ ci dugal ko ci néeg bu yaatu bu demee lu mat ñeent fukki nit nekk ay militaire ñu jàppee ko comme benn prisonnier rek lu bon lu nañu koy def ci kanam waaye moom sëriñ bi wax ni damaa xam ne nit ku ne ñaari malaaka ñi ngi ànd ak yéen la wattu te te li may naqari naqari na leen ñoom malaaka yi te teewul ñu koy mën kon naa ko mën waaw yu bon yan ñu def si mu mel ni kon di bàyyi xel loolu ñaari mbir al al shukru sant ak mooy day neex nga sant mu naqari nga muñ ko te jamono bi ñu toll sax nit ñi bëri nañ ay waaye li ñuy jàmbat daanaka jarul waaw ah, ah, ndax la nit daan dañ yonente bi dafa nett ni saxaaba yi ni leen na ngeen góorgóorlu ci seenu ngëm ndax ña leen jiitu daanañ ci jël ab teg ko ci bopp boppu nit xar ko ba mu def ñaari gaal te du ko tax a déranger benn centimètre ci ak ñoom ba ci net bi benn buur boo xam ne dafa amoon ab njabarkat bu koy njabar njabarkat bi bi mu demee ba màggat daal di ne buur bi màggat naa danga may boole gone goo xam ne dama koy jàngal jabar gi buur bi boolee ko ak gone gone ga di jàng jabar bi ci biir yoon wi muy dem di jàngi jabar bi mu romb benn labbe buy waxtaan ci mbirum yàlla mu di ko déglu loolu dugg xolam loolu gën koo ñor ci njabar bi ñu doon jàng mu di taxaw di ko def di ko déglu ba àgg ci bu demee seen kër dañ koy duma ne ko loolu tax demee ci jabarkat mu duma ko loolu tax loolu tax yeex a ko jàmbatee labbe boobu mu ne ko boo dematee ca seen kër buñ la laajee loolu tax yeex a ñëw nee leen damaa nekkoon ci jabarkat bi jóge duma ko moom a gàllankoor bi jabarkat bi boo demee bu la naree sonal nee ko suñu waa kër ñoo bàyyee gutum bu waaye xale bi di def noonu di jàng ci mbirum yàlla ba benn bés bu romb mbooloo mu taxaw lu mel ni aw rab kooku doon misaal da wax ne gaynde moo tax ci yoon bi ba gàllankoor lañ ba mënuñoo dem loolu yonent bi moom nag li ci tawhiid ak lu mu war doxee daal di wax ne xale bi dafa jël aw xeer daal di wax ne yàlla damay nattu mbirum njabarkat bi ak mbirum làbbe bi ni mu may jàng lu ci gën bu fekkee làbbe bi ni mu may jàngale moo gën li njabarkat bi jàngale yàlla na nga musal nit ñi ci lii leen sonal ci yoon daal di fab xeer gi sànne ko loolu yi mu daal di dee nit ñëpp kër kër bi këpp ci kaw xale bi ñii di ko ñaan lool suñu borom defit lépp lu mu ñaan am ci sax ba mu ñëwee wax ko labbe bi labbe bi ne ko yaa ma gën bi ndax lii nga man mën waaye nag dikk waaye bu ñu la sonalee bul ma wane mukk teel ndax xam naa ne bu da nga am jafe-jafe waaye noonu ñu di ko coow ba benn silmaxa bu daan toog ca wetu buur ba dégg ni xale bi mën naa faj ñëpp mën a ñëw andi jur bu bari ni ko lii lépp yaa boo ma fajee xale bi ne ko faju yàlla mooy faj boo ko gëmee ma ñaanal la mu wéral gumba gi bi mu gëmee xale bi ñaan yàlla mu daal di wér sàmm gis ci sa ba muy gis it mu delluwaat ci place bu mu daan toog ca wetu xool mool bi jékki-jékki gis ko muy jox da ngay gis mu ne ko ah ku la faj mu ne ko sama borom mu ne ko ban borom da nga xam benn borom man mu ne ko yàlla mooy si yàlla mooy sama borom léegi ba mu ko sonalee mu mu xam le xale bi moo ko faj buur bi jëlee xale daal ne ko yow sa njaboot àgg na si nga mën a faj sax ko bu ma ne ko man fajuma kenn yàlla mooy faj sama borom mu ne ko da ngaa am benn borom bu man mu ne ko yow doo yàlla yàlla mooy yàlla mu jàpp xale bi dafa sonal dafa sonal ba mu wane labbe ba ni xale bi labbe bi moo ko jàngal ba mu yàlla ñu jëlee labbe bi yonent bi ne labbe bi ñu ko andee dañoo fa am si teg ko ci kaw boobu ne ko da ngay weddi maa ñu rey mu lànk ñu riis ko ba xal ko ñaari gaal léegi daal di jàpp gumba ak ngëm bu duggee ci xol dafa amul muy diis bañ ko waxee ne ko da ngay weddi waa Juraay ba mu lànkee ñu teg siddi ci bopp bi wax ko mu gàntal ñu xar ko bu mu xar ñaari gàtt léegi daal di jël xale bi xale bi nag comme gone la xaj na buur bi ñàkkul lu mu ci bàyyi xel ci ñu bañ ko am lu dëpp ngir mu am njëriñ léegi dañu ko yóbbu ba ci digg géej gi bu nangoo dëpp dellusiwaat ci lii baax bu ko nangu ngeen sànni table bi léegi te ñëw bañ demee ba ci digg xale bi daal di ñaan ne allahumma kfinihim bi ma shi'ta yàlla yàlla gi daal di xar ñëpp jël aw dénk mu génn ba mu génnee dafa ñëw ci wetu bunt bi toog bunt na ko naa def ak mu ne yàlla musal na ma ñoom bunt jël ci am na doj bu kawe doj sàngam bu ñu demee ba ci foofu bu nangu dëpp dellusiwaat baax bu ko nangu ngeen sànni ko ba ñu demee ba ci ba ci kaw dañu xale bi ne allahumma kfinihim bima shi'ta yàlla yàlla na nga ma leen fegal ci li la soog doj bu xar ñoom ñëpp ñu dee moom bu ñëw ñu bisiwaat ci kanam boobu ne ko noo defal sa gaañ mu yàlla mosul na ñëw boobu ñu xalaat war xale bi ne ko nen képp nga mën a def pour rey ko mu ne ko waaw mu ne ko da ngay jël benn bantu fett ci sama bantu fett yi teg ko ci sama xale gi dajale mbooloo mi ci biir bu yaatu bu buñ ne bismil yeew ma ba ma dëgër ci ak ëkk buñ ne bismillahi rabbil quraan daal buñ ma jamee dañ maa rey waaye bu dul rek bu dul maa rey bu dul nañ def li wax ñu dajale mbooloo mi ëpp takk ko ba mu dëgër ñu jël benn bantu fett daal ne bismillahi rabbil quraan daal koy jàmm bu laal koy jàmm bu laal daal di ñëpp ña fa teewoon ne ah man gëm nañ ni borom Ngossi mooy dëkk bi ñu dikk ne boobu li nga doon moytu lu dal na la ndax mbooloo ma fa nekkoon ñëpp gëm nañ boor bi ku ci dëppul rek daal di gas ngaareel xóot ñu wut mat di taal di taal di taal jël mbooloo ku nanguwuti deltu naa ci dina ji nga gëm ñu tàbbal la ci moom lañ demee dem ba àgg ci jigéen ju yor xale bu tuuti buy nàmp ba mu demee ba jóg sawara bi déet déetam xale ba fu wax ne ko duggal ndax yaa nekk ci dëkk mu daal di avancé am na ñuy wax ne loolu yi moo waral suñu borom bi wax ci alquran naan qutila ashaabul uxduud an-naari zaatil waquud iz hum alayhaa qu'uud wa hum alaa maa yaf'aluuna bil mu'miniina shuhuud wa maa naqamuu minhum illaa an yu'minuu billaahil aziizil hamiid am ñu wax ne aaya boobu loolu yi dañu doon junj ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu rek li mu wax lépp rek mooy tawhiid ak ngëm ndimbalu su borom bu ko yàlla dimbalee nga sàmm ak foo maa ne ak loo maa ne bu dee ak ñàkk yonent bi daan wax naan man faqru asa man faqra asa ala tiituma ci yéen ak ñàkk daay wax li may tiit ci yéen kay an tubsata alaykum dunya kama busitat ala alladina min qablikum fatanafasuha kama tanaafasuuha fa tuhlikakum kama ahlakat li may sit yéen rek mooy adduna bu sotti ko ci yéen ba ngeen jëkkante ko na ko ña leen jiitu boobaa mu alag leen comme woon ña leen waaye ak ñàkk ci tuuti ci waaw daana wax it mbir mii suñu borom dina ko jàllale ba nit dina dox ci diggante fii ak yaman du ragal lu dul ak tëll ci al ak tëll ba ab addugal waaye dina ci defee ñu jàll incha allah léegi moo tax nag fu nit nekk di ko fa jàll na xam mission bi yor mu di ci góorgóorlu képp laaj di ñaan yàlla jafe-jafe yi ñu ko ñaan yàlla ndax lu dal ab jullit dal na ab yéex te jullit bi di yaakaar lu yéex bi yaakaar métit wu jullit bi métit lu rek yéefa baa ko métit te jullit baa ngi yaakaar lu yéefa bi yaakaar loolu mooy iyaam saskum xarxun faqad massal xawma xarxun nas wax na in takunu taalamuun fa innahum yaalamuun kama taalamuun wa tarjuuna minallaahi maa léegi lu leen métti rek métti na leen te yéen a ngi yaakaar duñu yaakaar jamono dama dem Italie ñu wane ci télévision nit ak ñaari doom nit ak soxnaam ak ñaari doom ñu bind aw kayit bàyyi seen kër ne dañoo am jafe-jafe ci wàllu dund dem ba ci mel ni montagne ñu wàcc ñu ñëpp dee ñu wane leen ñëpp ñu ne ñii dañoo wax li ñu am jafe-jafe économie moo tax ñu dem dee léegi mu mel ni ko jullit bi li ko yàlla may muy bu neexee mu sant bu naqaree mu muñ moom képp lu ko yàlla jagleel moo tax loolu ku ci nekk di góorgóorlu si ndax bu dee programme yi tax ci àddina moom moo def àddina di naqari di metti nit ñi di ñu mujj bu am di ci jot bu ñu demoon jot si jeex benn mooy kat boo xam ne ara taaliba wa in taala umruhu wa naala min a dunya sururan wa an'ama a baanin bana bunyaanahu fa aqaamahu fa lamma stawaa maa a tahaddama moom mooy wax na ne ni ma gisee kuy a àdduna su réew te kuy tabax tabax ba mu jekk ba ñu tabax bi jekk mu daal daan tabax day mabaate fi mu toll nii ku wut àdduna ba am li nga bëgg lépp a jaaxal sax day mel ni sax li tax ci àdduna mooy ngay yóotu loo jot a waaye boo demee ba jot sax jaaxle nga foofu tàmbali waaw moo tax daanaka li am solo mooy nekk ci li nga war a nekk di góorgóorlu si kam kàttan léegi sàmm sa pas-pas ni nga li la boolee Serigne Touba nga xam jamono bu la nga ciy jéem a góorgóorlu tey mag ñi ñu àndoon sax ngir sàkku si xabaar bi dañoo jógoon ngir lépp suñu moom gëdoo nga daan wax li nga wute kon weñ wute ko la weñ bëgg li nga wute man lu bañ wute ko loo léegi yàlla boo ko xasee am adduna moo lay topp si waaye adduna seen tubaab dana wax ne adduna ak jigéen ak ko takk neer ñooy loo ci dàq doo ko dab loo ci wan ginnaaw doo ko ci dàq doo ko rab ci wan ginnaaw doo ko moo tax daanaka xam ngi rek ci am solo ak di ci góorgóorlu suñ kam Serigne Saliou am na ay jamono ma toog ak moom mu ni ma man de jënd naa ñaar seen tracteur ak nanga waaye liggéey bi de dara safatu daal ne ma ndax gone yi ñàkk ñu ñàkk safoo li ñu leen def loolu daal jaaxal na ma ci loolu daal ma nii ñu def nii bu màggal jotee ñu demandoo bu tabaski jotee ñu demandoo te wóor na ma ne korité lañ ci teg buñ doon tàggu ña ma leen boole sax du ma jaaxal ndax danaa xam ne li ñu leen defloo safoo nañ waaye ñàkk cee safoo daal jaaxal ma daal am na kayit bu ma daan sukkandiku de jàpp ne lii dañ ma ko liggéeyloo waaye fii may wax yow jàpp naa ne lii dëgg sama liggéey voilà découragement boobu ci mu jëm gannaaw bi mu dajale waat jóge ñëpp ci benn daal nee na damaa bëgg ngeen gën a ci liggéey bi ndax yàlla kenn du ko woon gannaaw yàlla ku ko woon doo xam foo daal góorgóorlu waa ci wàllu tali bi góorgóorlu ci baax kenn mën na jàpp moo ko war a def ba mu waxee ba noppi ma ne ko waaw man de fan ne dañoo toog ngay wax ne nga wax ba jàpp ne liggéey bi dañu ko liggéeyaloo waaye man de dama jàpp mooy liggéey bi yow mii ko liggéeyaloo xaj nag li si dal mooy lii dal képp kuy liggéey liggéey buñ buñ nam ndax la muy def du ko gis waaye nag tarbiya gi nit seen ma nga xam ne dama ko jàpp. mu daal a wa rahmatulah. waaye loolu moom àdduna àdduna léegi jamono bu ne da ngay jàpp ni yow dara sotti ko ci waaye fekk na nag yàlla li mu soxla ci yow mooy nga def nag résultat bi moom ci loxoom la nekk nekkul ci sa loxo waaw ndax yàlla yonente yi sax eh, ni mu daan doxee ñoom mooy hatta ida stay'asa rusul wa dhannu annahum qad kuzzibu jaa'ahum rasuluna yonente yi sax daal dañu woote woote woote dem moom ñu naagu ne li ñuy wut daal li ñuy lijjanti daal du lijjanti ko ndimbal yàlla doogaa si léegi moo tax nit bu mu tàyyal bu mu découragé loolu sax ko tey lijjanti ko boo liggéey lijjanti ko boo liggéey nga lijjanti ko fii ak téeméer yoon bul découragé ba noppi nag bàyyi ko ci loxo yàlla waaye li ñu la defal daal mooy di jéem di sàkk joxe sa kem kàttan résultat ci loxo yàlla nekk ni ko ci loxo damaa yéen yàlla def nag dégg toog defal ñu dimbal ak tamit defal sa kàddu yi cant ndax sëñ Cheikh Diop ak sëñ ak mboolem ñi leen di jàppale weer wu dee ñu dajale seen suuf yónnee ko ci daal boobu liggéey ah, ah, ma ko jàpp si sama waaye waaye daal sant mënta la su cant nga xam ne daal ñu ngi sant mbokk ci liggéey bu baax. di ñaan suñu borom mu defal leen ak dimbal euh, te lépp lu ñuy ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñoo ngi ñaan suñu borom am ci lu kawe seen jot waaw te Sëriñ Saliou bi mas naa wax liggéeyal Sëriñ Tuubaa du ci yërëm kenn ndax wóor na ma ne nit mënu koo defar lu mu amatul pay la ca des dafa am. góor gu góor mbay loolu la suñu sax maye ko natt te soxna maye ko booy juróom moo tudd soxna maye mu mag booba daan ji ca kàtt na mu di ko natt li dafa am góor góor mbay si jamono si tudd benn bi mu ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi téye ko lu yàgg ba ceebo yi ñu xamoon ci ab nawet yi ci ëpp solo jàll sëñ bi romb ko di julli mu ne ko sëñ ceebu sàngam di jàll ak ceebu sàngam ak ceebu sàngam ba nga xam daal day mel ne ceebu yu baax yëpp jàll nawetum xar baax a des señ bi ne ko moo ni may te am la mu mel ni ceebu kooku mu doon ba loo ci def gis lu ko ëpp téeméer yoon ndax boo dem mag ñi ko di ko toog daan ko liggéey di ñaq di ko jox egg nañ xam ne kawe na seen waaw moo tax nit lu mu ci def bu bu mu ko xeeb lu mu tuutul waaye bu mu ko réeré ak nu mën a toll léegi na xam di ko tax a jóg te dama dañoo wax ne sëriñ bi dafa wax ci mujjam ne ci biir waxtaan yi war a def ni man de nit ñi dañu maa bett ma wëlbati ko bett leen ñu wëlbati ko bettaat ma wëlbati ko bettaat leen te dootuñu ma bett ko ma daal ni la ñu ma bett mooy ba may jóg di jëm ci sama borom yaakaar moom du ci topp omo lu may geesu gis moo la ci sama kanam may itam la ma leen bett mooy ku ma ci masaa ci topp yaakaar moom fépp ku addu ma bett leen ak addu yu mat sëkk ba duñ ko tijjiwaat fépp ñoom itam dañu ma bett nag mooy dañoo jàpp ci àdduna joojee ba fàtte yàlla ba leen taxoon ci ko daal waaye may itam la ma leen bett la mooy dootu ko seexal kenn di ko tafal mbooloo waaye ku jóg mën a ci sa jiba yàlla na sëriñ Tuubaa nekk ci suñu jiba boo dina ci mbooloo mu jóg loolu muy wax te lépp lu def ci ab liggéey yàlla nañ ci gis ko suñu te it am nañ ci yaakaar suñu saa daa wax luñ ci am luñ ci luñ ci daan am rek mënees na ci am lu ko ëpp jamono bi ñu toll ndax sëñ bi li wax bopp mooy xultu wa ay yaa bis rat ko moosi wax na ne sama tay ju ne gàcceel na samay déw kon lu ci nit amul déw mënees naa am lu ko am tey jii pas-pas boobu itam la ci suñu ko ca des it mooy ñëw na ci daara ji ci gone yi ku mel waaw ñun suñu tarbiya sa nit bu mosaan di tarbiya dëkk ci néegu ñax di tëj ci suuf di xiif ak mar ak solo ñun ñu dëkk ci ay tabax di lekk ceeb mbaa suñu tarbiya gi mbaa loolu du yàq tarbiya gi sëñ bi ne ko da koy sëñ bi ne da koy defar ndax nit fa mu doge aw yoon fa la ci aw waaw kon fu ngeen mën a nekk te pas-pas pas-pas bi wér mm. ngeen di góorgóorlu jàppale di seen kii jéem a liggéey seen tubaab loolee lu kawe jot yan lañ ci suñu doon dajalee dimbalam ak tawfeexam dafa leen ci doon jot loolu mooy kàddu cant yi nga xam ne bëgg naa ko jot li vraiment def ñaan bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu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 أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا خالصة يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله الطيبين الطاهرين وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح العلماء والعاملين ومشايخنا في الدين رحمة الله عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وجميع تعلقاتنا وإلى أرواح صاحب الخيرات والحسنات وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من سلطاننا سلطان المسلمين وانصر علماءنا